Serigne Saliou sekk dans leen ak nata sering Serigne Bassirou Gueye danaka ci site d'information yi nek ci rewmi mi di amal nañu conseil supérieur de magistrature ba procureur de la république Serigne Bassirou Gueye teggi Gimnekon ko ci togom gi Diouf mi président chambre cour d'appel bu Dakar moko ko situ groupe futur Médias bi yokku ci ne des Samba itam Omar Maham Diallo mi président chambre à la cour d'appel bu moko moko daldi daal dogal bi les réunions, man ngeen koo daw xool ci 3w point igfm point sn seneweb point com itam dinu xibaar ci lu tukkee ci boobu les réunions site d'information bi xamal ne Ousmane Diagne mi nga xamné ci ay jamono mom la Serigne Bassirou Gueye parquet bu Dakar mom la nu tab procureur général près la cour d'appel de Dakar Seneweb yokku ci né ki mu remplacé moo Lansana Diaby itam ci réunion conseil supérieur magistrature bi le gontu di wax journal en ligne bi magistrat Maham Diallo mi nekkoon ba président cour d'appel bu Thior mom la nu tab def ko doyen des juges mu daldi fay ndem Samba Sall mi faatu woon jamono yi nu weesu keneen ku faatu jamono yi ñu weesu moo di Thione Ballago Seck IGFM point sn di nu xibaar ne njiitu réew mi di président Macky Sall dem na kër Waly Ballago sekk ngir yóbbul ko am njaalam gannaaw génn àdduna ko waaye juróom góor bile di Thione Ballago sekk Presse Afrique moom dem ci page Facebook bu ONG Jamra ngir xool la fa nekk site d'information bi dinu xamal ne ONG islamique Jamra nee na alxamis bi nu dëgmal ci lay déposer plainte ngir ñu leeral mbir viol yi ñuy tudd ci Miss Sénégal 2020 wàllu jàng ak jàngale Bambey 24 dellusiwaat ci li xewoon ci université Alioune Diop bu site d'information bi dinu xibaar ne gannaaw togg gu bon ba ñu fa defoon ba yenn ci ay étudiants seen biir yi di daw ñi le di wàccu restaurant boobee dañ koo tëjoon ci mujjantal ga ubbi nañ ko ginnaaw bi nga xamee ni si waa service d'hygiène daal di nañ fay jaar tàggat yaram ngir jeexal yu sport dinu xibaar ne góolub Sénégal bii di wuyoo ci turu Edouard Mendy boole nan ko ci juróomi gardien yi a xëccoo The 2021 ci wàllu ki dàq góolu ci atum bi fii mbokk yi lañ yem ci seen tour du web di leen jaajëfal